alaikum. Euh, waxoon naa ko une conférence de presse d'avant match bi ñuy match b contre euh, l'équipe championne d'Afrique en c'était pour natt suñu pour xayma suñu bopp ñu nekk euh, un grand Afrique tey gis nañ ni écart bi mi ngi donc c'est équipe bu mag bi ñu doon xaar moom nañu gis collectif bu huilé ay joueuses yu am expérience surtout prochaine défense bi les joueurs euh, euh, qui nous ont posé des problèmes ci biir jeu bi euh, te loolu ni parce que haute compétition il faut que nous les poser des problèmes pour que boo demaatee entraînement nga mun xayma xam nan résoudre mais si biir jeu bi bi ñu tàmbalee ñoom dañu imposer je pense que aussi suñu xale yi dañu xaw jouer joué ci turu adversaire bi parce que aussi nous ñëwoon ñëw rek sànneeku noonu dañ leen respecté trop mais après si deuxième ab euh, bi ñu demee ba mu am vingt minutes gis nañu beneen équipe Sénégal bu bu bu yéeg bu mënoon sax dugal si période bobu non parce que ñom vraiment dominé won nañ dans le jeu mais presque amuñu woon occasion bu bu franche euh, deuxième période bi ñom aussi bi ñu ñëwaatee dañu indiwaat benen intensité euh, mais ba dugal benn erreur euh, de de de positionnement de notre équipe mais li nga xam ni moom laay retenir mooy xale yi euh, bàyyiwuñu benn yoon gëm nañ ni mun nañ dellu soit si match bi di ko xeex ba si biir arrêt de jeu yi ñu am penalty boobu donc lu am solo la donc am na jàngat yu bëri yoo xam ne am nañ ko si bu ñu demee dinañ si liggéey pour préparer deuxième match bi au delà du score li amoon importance pour ñun moom mooy ñu nat suñu bopp xam tey lan mooy différence bi fan la ñu toll et ñu dinañ jéem a fexe defaat match bu nekkaat parce que match bu amoon intensité la match bu amoon beaucoup de défis sur le plan tactique sur le plan technique et répondre nañ si d'une certaine manière et je pense qu'il faut féliciter joueurs yi pour match bi nga xam ne tey def nañ ko ils ont fait un match sérieux waaw c'est vrai que préparons woon nañ adversaire bi defay ay vidéo clip mais mom ak ki nga xamni tay jonganté nga ak mom froté ak mom ba xam lan la mëne tay euh, dinañu gëna jangat bi xol yeen problème lañ ñu poser pour que ñun aussi ñu mën si am ay réponse mais li nga xamni mom mo am importance pour man mom moy que ni match bi demb ma ngi koy wax dañ bëggoon nat suñu bop xol tay di ni fan ñu tollu face à cette grande équipe gis nañ tay suñuy xale taxawaay bi taxaw mais gis nañu même ay remplaçantes yoo xam ne indi nañ leen pour que parce que haute compétition lañ jëm coupe d'Afrique la carton mun na am suspension mun na am blessure mun na am méforme mun na am donc duñu bugg am poste bu ne ñaar wala ñetti joueurs yoo xam ni saa yu kenn ki nekkul foofu nga nga nga dugal keneen ki te tey bu ngeen xoolee génne nañu suñu cadre yi ku mel ni tey Safi génn na ku mel ni Ngenaan Njaay génn na euh, hein, ak Korka capitaine bi et euh, non pas l'habitude de sortir mais on a pris ce risque là dugal ay xale pour xool ñoom aussi seen réaction même bu fekkee ni adversaire bi donc moi j'étais euh, pas trop si résultat bi am na solo mais jàngat yan nga si am moo am solo et je pense que ni am nañ si jàngat yu bëri yoo xam ne dinañ permettre déjà prochain match bi ginnaaw suba ñu am beneen xar taxawaay et Game attaquer parce que aussi un point potentiel